ñu ngi di eh, nuyu bu baax am mbégte loolu ànd ak yéen tey nag ñu fi nga xam ne moom mooy ci Tallinn Sow seet si Arame Diagne bu ko defee mu expliquer ñu petit peu ñu waral jotaay bi léegi di nuyu bu baax di mm-hmm. moo waral jotaay li ko waral mooy euh, injustice bu metti boo xam ne nii daal dafa dal suñu kaw. Mm-hmm. mu concerné sama quatre frères suñu nijaay mm-hmm. ñoo xamante ni nii dëgg fa neex yàlla yàlla mi dara tëwul moo weddi mm-hmm. suñu waajur teel a génn àddina boobu ay xale lañ mm-hmm. euh, yaayam nekkoon ak sama yaay ba sama yaay muur ba simmi sama yaay muur ba simmi ah man daal dama jàngi wàcc ñëw fekk kër gi tristesse bu metti ku nekk di jooy ma ni lu xew ñu ni ma sa nijaay mooy yóbbu sa yaay mu metti loolu nag ndax xale bu fekkente ne nii dafa miin papaam ak yaayam ñu jékki-jékki papaam génn àddina mu jooy loolu noppeekul ah yaayam war a jógewaat ci loxoom mu nekk metti na lool nag loo xam ne jaar-jaar mu metti la ci ñun mm-hmm. euh, bi yàlla dogalee mu ànd ak sama yaay dem euh, ba ñu nekkee Touba moom këram dafa amoon benn boutique garage bi la defoon boutique mm-hmm. boutique détail boutique boobu nag bi sama frère bi demee ne day seeti sama yaay vacances yi dafa dugg ci boutique bi di leen jàppale xale bu passeefu la nag macha allah te sawar. Mm-hmm. xam naa ni mu nekk ci biir di leen jàppale ah mu gis ni kii kat vraiment euh, war na mën a gérer lii donte mm-hmm. da doon jàng. Mm-hmm. mu tee ko fa fa la des jàng si waatul. beneen année bi rakk ji ñëw moom tam ni seet day seet sama yaay moom tam dem ànd ak euh, magam ñu nekk ci boutique bi ba ñoom ñaan ñëpp noonu lañ arrêté seen jàng mm-hmm. seen mag moom dafa am euh, magasin bu nekkoon euh, marché ngelaw kooku moom foofu la demoon vacances yi ci moom bi demee vacances ci moom moom tamit fa la jaare arrêté ay jàngam ñoom ñëpp daal seen jàng mooy ki nga xam ni moo ko arrêté ci age boo xam ni vraiment xale jàng la tollu woon ah nga teg ko ci boutique muy yenu ay keesu boisson denu ay saaku ceeb di fanaanee takk ay suukar ak i poobar di la liggéeyal macha allah ba yàlla defal la barke ah kooku wax dëgg yàlla amel nga ko beneen njukkal bu dul bii nga xamante ni nii moom moo am tey ndax vraiment dafa accusé sama frère yi ba emprisonné leen te euh, li gën a graaw moom moo di liggéey bi ñoom biñ ci nekkee ba mu demee ba yaatu ba commencé génn ay xéewal ay frère am dañu jóge Italie ñëw bi ñu ñëwee ñëw adhéré ci liggéey bi nekk ci ñoom tamit gis nañ ni sax ba ñu commencé liggéey dañoo am privilège yoo xam ne xale yi sañ liggéey bi ba fruit yooyu di génn amuñu ko parce que ñoom seeni dépense seeni euh, seeni oto yu ñuy dawal seeni kër yu ñuy dëkk seeni lépp loo xam ne nii rek nit daf koy soxla dañoo am benn compte boo xam ni fa lañ leen koy jënal ci boutique bi mhm. alors que sama frère yi nga xam ne ñoo fa nekkoon ba dara dul dara ñooñu lu ñu jël dañ leen koy bindal mu nekk injustice nag injustice bu metti boo xamante ni nii lu dara jaaduwul waaye li gën a grave moom moo di accusation yi mu def sama frère dinaa ñëwaat ci yenn détails yi mais damay bëgg a préciser ak que ni moom bu fekkee liggéey bi dafa am loo xam ne moom moo tax ñu dem ba yegg ci ñu leen di tëj kaso man je me demande nag ana ñeneen ñi ñu ko bokkaloo parce que liggéey bi nekkul woon ñoom kese ñoom ci boppam ay frère am dañu ñëwoon bokk si ci liggéey bi sama frère sorti lay bind sama benn frère bu ñu wax Ibrahima day bind sorti Touba sama beneen frère bu ñuy wax Abdourahim day bind sorti Touba moom tamit am na ñaari frère am yuy bind sorti Touba ak kuy bind Dakar ak seen mag bi nga xam ne saa yu ñu paree ci xaalis bi moom moo koy jël di ko déposer banque. seen rakkam bi nekk Dakar am procuration boo xamante ne nii am na accès ci banque yi bu ko neexee mu retiré fa mu ngi bind chèque ah y compris doomam bi nga xamante ne nii ba mu jàngee ba ñëw nañ ko adhéré ci liggéey bi koo xamante ni yaa ngi doog ñëw ah nga am privilège boo xamante ne ña fa nekk vingt huit ans amuñ ko mhm. mooy sa papa defal la procuration ci banque bi nga mën a signer chèque mën a déposer bu la neexee nga retiré parce que mhm. loolu mooy procuration mooy li ma mën mën nga ko mhm. waaye nag alhamdulilah parce que comme tey mi ngi leen di tuumaal bu leen defaloon procuration dina gën a metti injustice bu méttee metti lañ doon dund li nga xam ne mooy génnee ci boutique bi bu dee coono ñoom ñoo ko ëppale mais bu dee loo xamante ni nii ah fruit yi boutique bi récolté ñoom ñoo ci ëppale ñoo dëkk ci kër yi rafet ñooy war ci oto yi ñoom la ñuy jox ndawal ñoom la ñuy jox jën di fayal seeni doom jàng seeni xar ak seeni nag sax bu ñu leen di yar ah, xale ñooy ñakk di ko génne ci boutique bi. ma la mhm. ci naaj bi waa këram nekk ci kër gi. waa mhm. tey nag <laughs> bi emprisonné ñëwee ñi nekkoon ci kër gi ñooñu ñëpp justice da leen rocci mhm. jël ay jarbaatam tëj leen ñu bëgg a xam na ñu newoon ci naaj bi. ñooñu lañ tëj ci kaso bi ñi newoon ci kër gi ku di di nekk ci seeni climatiseur ma defe ne loolu du justice réew mi dafa war a am yoon képp koo xamante ni nii danga nga bëgg a tëj nit rek ni tëjal leen ma ko ñu tëj ko mhm. ndax moom bu bëggee tëj nit da koy wax publiquement d'abord mhm. day wër ni diw dinaa ko tëj kenn mënul fexe ba ba duma ko tëj te li wax day am li mu wax noonu la koy defee mhm. mu nekk loo xamante ni yéeme na trop ci réew mi injustice yu doy waar la def ndax euh, sama fraire bi dafa waxtaan ak moom rappelé ko à l'ordre li li nga xam ne moom lañ doon euh, tàmbalee mooy kat bu ñu inventaire un tiers bi ñoom ñoo ko moom. Mhm. loolu la ko doon rappeler à l'ordre ba pare wax ko ni ko ñun ñi nga xam ne ñun ñoo door liggéey bi ba fi kenn nekk ko ñun ñoo fi nekk di luye charrette mbaam di jënd bagage di yenu ay saaku di tegle ay keesu boisson ñun ñi fi nekkoon démb tey ba say frère ñëwee dañoo commencé di am loo xam ne wutal nga leen ay kër wutal leen ay terrain. ñoom ay oto bay rechanger di rechanger te ñun amuñu fi dara suñu moroom yëpp yëpp dañ ñoo raw boo xoolee sa ñetti kër yi dañuy dépassé plus de cinq cent dix millions mm-hmm. par an te loolu nekk loo xam ne jaadu na ndax ñu mburu sax bu ñu ko jëndee dañ koy fay ci boutique bi mu mm-hmm. attaqué xale bi ñu ko léegi da nga am fit léegi da nga am fit sama kër yi bu ñuy dépassé cent millions par par weer sax sa yoon nekku ci xale bi ni ko ah kay parce que liggéey bi suñu koy liggéey fruit bu mu mën a apporter ko bu mën a ñëw fekk si liggéey bi ñun dañ ko xaar ñun ñoo ko ñàkk liggéey bi bi mu commencé am bénéfice plus de huit cent millions un milliard ci nga commencé di dagg suñu un tiers te lu mu nekk ñun dañ koo moom ndax ñun ñoo ko fi toog ñoo ko fi xaar ñun ñoo ko fa liggéey mu ne xale bi dara du fi changé dara du fi changé su la neexatul nga dem uti beneen liggéey xale bi ko bis ni tey bàyyi naa waatal ko ci Serigne Touba ni ko bàyyi naa bàyyi boobu nag ba mu ko defee dem toog def nañ ñoom médiation pour xale bi ñëwaat mun leen da ko dogu ci Serigne Touba du ñëwaat ah toog mois liggéey trois mois yi rek commencé na ba mu xamee ni kii du dellu si commencé na bunu xataal frère yi nga xam ne ñoo fa des bunu xataal leen bunu xataal yu méttee ki ñuy wax Abdourahim mhm. te Abdourahim këram la dëkkoon ndax ba sama frère yi di toxu dafa ni leen Abdourahim du dem ndax yow yaa fi nekk ci góor kër gi mu nekk ca kër ga ak ay soxnaam soxnaam yi ñooy xëy di dem marché di togg añ ci kër gi mhm. Abdourahim moom moom mooy nekk ci kër gi lépp lu góor war a def moom moo koy def moom lan lay liggéey ah day xëy suba bu ko neexee mi ngi ci kër gee bu neexee mi ngi ci kër gi invité ay autorité invité ay kilifa toog yónnee lu ñu jox ko mu def ay miche yi nekk daal ci bakkanam mhm. nekk ci bakkanam xaalis bu bu xale yi liggéey mu jënd ci ay terrain jënd ci ay oto am nañ de trois cent véhicules te xale yi musuñu ci am benn benn benn soo demee ba ñi fekk si xale yi ci liggéey bi nekk ci seen troisième véhicule te xale yi musuñu am benn oto ñu naan yaa ngi may ay kilifa oto te xale yi musuñu am benn oto xale yi di ñakk soo bëggee jënd ay ay ay nag wala nga jënd bëgg jënd ay xar di ko may ay kilifa diine ak ay kilifa aada doo ko jël ci sa compte da koy jël ci li xale yi ñàkk mm-hmm. kon kooku war nañ xam ne lépp lu mu génne rek ñàkk xale yi moo ngi ci biir léegi nag bi yàlla dogalee xale bi ubbi place bu ma xataal yu méttee méttee sama frère boobu dëkkoon këram dafa xëy suba moom jóge fa mook ay soxnaam wàcc jigéen ñi ñoo njëkk a ñëw gardien bi ne nee na du ngeen dugg ci kër gi mm-hmm. ñu téléphoné seen borom kër wax ko ko mu leen dem leen sama kër yaay toog comme jàpp na ne moom mooy góor xëy na dafa jàpp ne gardien bi dafa yeb xale yu jigéen rek hmm. bi mu ñëwee bëgg dugg gardien bi du du dugg mu jàppante fa ak gardien bi am koo xamante ne nii takk der la ku ko woo moom daal lu yëngu sax ah takk der moo koy fajal soxlaam. Hmm. ma defee ne xanaa moom juste Sénégal moom rek moo ko moom ba ku ku ne sa bët xonk na sax mu boole laag ku la yemale sa place. Hmm. noonu lañ fa nekkee ba moom ñu ñaan ko njekk mu ñëw toog ci kër gi seen mbubb topp leen seen dàll topp leen seeni garab topp leen seen dossier médical lépp ngi ci biir ma defe ne nit amul boobu doole fii Sénégal mm. ndax da gis ku liggéey këram ba mu baax sax luye ko nit bu fayul sax amoo sañ-sañ boobu ci moom soo ko bëggee génne sax di nga jaar justice ba am ordonnance huissier mais nga xëy suba rek gardien bi bu fi diw dëkk dugg te diw moomu ñaq ba ñu tabax kër googu dëkk fa ak yow mm-hmm. noonu la nekkee moom nekkee moom noonu ba ni ko xëyee suba jëlee ko ci place bi illégalement te loolu lépp ay document la amul lenn lu ñuy wax lu dul loo xam ne am nañ ci preuve. Mhm. bis bu yoon waree def liggéeyam lépp loo xamante ne jaaduwu ci dina génn. ki nekk ndakaar hmm? voilà balaa ngaa ñëw ci ku hmm? def ay médiation waxtaan ak moom. ah duñu def médiation médiation parce que ndax duñu def médiation mooy euh, jiñaate dafa yéeme. xam nga nit boo ko nee yaa jël bu ñëwee di la baalu kon dafa mel ni dafa dëggal ni dafa jël mm-hmm. nit mën na def lu ne médiation ba mu des jiñaate mm-hmm. ndax booy def médiation day nekk ni jote ngeen wala dara waaye diw yaa jël samay milliards kooku kenn mënu koo def médiation mm-hmm. am na nag ay kilifa yoo xam ne nii ah ndax Sénégal loolu lañ xam lu fi am ñu bëgg a dox lu rafet dañ koy dox ba ñu demee ci moom <laughs> dani leen kilifa gi gën a mag ca Touba la tudd ni kooku sax mënu ko téye kooku sax mënu ko téye loolu la wax am na nag ay kilifa yoo xamante ni nii hmm. ah wax nañu ñoo xam ne ay sëriñam la mais daal kenn mënu ko téye hmm. comme moom moo tudd kilifa gu gën a mag ni mënu ko téye beneen sëriñ mënu ko téye kon kooku jarul jarul def def ci moom médiation ah dëgg yàlla de ci li may dégg hmm. Eh, ñi ko war a ñaan njëkk ah ñëpp ñaan lañ ko mu taxaw fu mu taxaw sama freer bi nekk euh, dakaar fii nga xam ne ñoom butigam boobu ñett ba ñeenti nit jaar na fa ñoo xam ne nii mosuñu ko mën a doxal mm-hmm. yàlla moo yor barke di ko def ci loxo ku ko neex kooku ba mu nekkee xale la fa nekk di bunge ñooñu taxul seeni yëf ndox ba ñu demee ba nga xam ne ñoom ñëpp paasal na leen ñu dem tukki ci la jël boutique bi inventaire ko muy valeur cent cinquante à cent cinquante cinq million jox ko ko kooku liggéey ba remboursé capital bi ba mu jeex tàkk mm-hmm. continuer di liggéey ba yóbbu capital bi ci huit cent quelque million mm-hmm. kon xanaa kooku jàmbaar la kooku xanaa yàqul sa liggéey te moo ne ñaar marché ngelaw ga mu ne kenn mënu ko fa ci wàllu liggéey te seede yu rafet a rafet la fa am mm-hmm. waaye amul dara dara ba dara booloo am ko bu bëggee dem seeti njabootam Touba sax day woo allu taxi fay ko dugg ci ci ku ñu ne yow ñu ngi enregistré trois cent véhicules ci yow mhm. nga dem ba di ci rechanger ay nit di ci maye man damay dem ba ci biir ma ne lii ah est-ce que sax ndeke iñaan ji moom yàgg na nekk digganteem ak xale yi xale yi ñoo ko bëgg mhm. def ko papa def ko yaay def ko lépp moom kàddoom ku ko xam xam xale yi xam ne kàddoom kese moo mësa moom moo nekk loo xamante ne nii moom la xare yi di déglu mm-hmm. lu mu wax loolu lañ wax lu mu waxul waxuñu ko lu mu bëgg ñu def lu mu bañ ñu bàyyi kenn ci ñoom nag ñemewu ko ku ci feebar sax da xëy dem liggéey sama frère doomam gaañu na ma woo ko di ko ma saw ne ko fa nekk mun ma mang magasin jour boobu dama mer am lu ma metti dama ko jooy mm-hmm. di ñaan ci yàlla yàlla na nga dog buumu njaam gi nga xamante ni nii sama nijaay ji def ko takk sama rakk yi mu metti ma situation bu ma yàgg a metti li mais ci dara munu ci dara lu dul toog di ñaan yàlla lii leen séparé nag wax naa ko waaye li gën a li gën a doy waar moo di moom biñ leen biñ leen convoqué bi ñu demee wuy ji ba ñu déglu leen sama frère bi am jabet daf ko ni man dama feebar dama am jabet type 1 damay piqûre mu ne ko ah loolu de moom doy na waar kon léegi yow danga may indil sa dossier médical am sama beneen frère boo xam ne suñu doomu ndey la kooku tam ne ko man itam damaa feebar dama am drépano SS mm-hmm. mu ne kon yéen ñaar dañ leen di defal retour de parquet ñu yóbbuwaat leen ba ca mardi ba sekk seen dossier mën a ñëw mm-hmm. ba seen dossier ñëwee ñu may leen liberté provisoire placé leen su sous contrôle judiciaire pour ñëw ñu ñëw di signer chaque mois wala bu leen buñ leen soxlaa woo leen dañoo jël def appel ci Ibrahima Diagne mais dossier appel bi dañu ne dossier médical bi médecin moo ko def pourtant médecin moo defoon beneen dossier médical bi ça veut dire que ni Ibrahima lañ soxla Ibrahima lañ soxla ñu def appel ci moom ma defe ni xanaa nit jullit war na am loo xamante ne ni war na ko jommale parce que Ibrahima diabète type 1 boobu tegu ko boppam yàlla moo ko ko teg mhm. te amul kenn koo xam ne nii bu la yàlla tàgg woon laaj la ndax bëgg nga ko di nga ne ko bëgg teg ma ko mu nekk natt boo xam ne nii bu nit ñi di dugg ci ci ci pâtisserie Ibrahima du fa dugg mhm. Ibrahima du dem jëndi glace Ibrahima boo toogee ci bool du lekk moom six cuillères la am droit mhm. soo xëyee lekk mburu bu ngoonee waru lekk pomme de terre war a régime régime boo xam ne pour mën a avoir la bonne santé parce que jabet ku ne xam na ni Euh, li nga xam ne moom mooy principal li nga xam ne moo ko mën a stoppé mooy régime mm-hmm. mu nekk ci régime am régime di ko régime mu dem di signer contrôle judiciaire ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee sama kanam la mu nekk image bu dul fàtte mukk dinaa dëgër nag ba duma ci jooy tey parce que dama bëgg li may wax nit ñi dégg ko mu metti ma torop torop ba fu yàlla yam ma xool ko mu xool ma ma néew doole mënuma ci dara ñu yóbbu ko bi ñu ko yóbboo ma daw bi ma ñëwee ci maison bi ma taxaw jékki-jékki gis ñu defaat ko ci oto romb aw fu ma téléphoné xaw ma lan moo xew ma toog fi ma toog jooy jooy yu metti parce que loolu dafa metti <laughs> ma jékki-jékki am benn appel hmm. mu ne ma ñu ngi hôpital dafa soxla ndox te mënuma déplacé wu su fekkee mën nga jënd ndox nga indi ko ma jënd ndox ñëw fekk ñu tëral ko perfusé ko mu nekk situation bu metti ndekete dañ ko defal bi bu booy dugg dañ lay defal visite médical diabète am yéeg ba quatre virgule quatre gramme virgule loolu nit faatu na ci ba tàyyi yàlla rek moo ko tenir yàlla moo jàpp ci ay mbaggam mm-hmm. ma foog ne bu tanee dañ koy bàyyi mu ñibbi mm-hmm. ñu jël ko yóbbuwaat ko sama yaay nelawul sama yaay am lu ko metti sama yaay jooy jooyu metti man dama jooy ba mënatuma xamuñu lu xew mënuñu jot ibrahim ma ndax ku nekk prison ku ne xam ne ne yow yaa mën a woote kenn mënu kenn mënu la woo. moom mi ngi prison ba léegi. lu doy waar. Hmm. te désigné nañ médecin expert médecin bi consulté ko koo xam ne Abbas Ndaw la nekk nekk diabétologue nekk médecin agré consulté ko loo xam ne ñun ñii demuñu ñoom ñoo ko yóbbuloon seen bopp. Hmm. dossier bi nag suñuy avocat yoon nañ ko. préciser ni kii mënul nekk en détention ñu continuer téye ko fa. liberté provisoire bu ñu ko dugalal ñu rejeté ko ma foog ne nag xanaa justice bi sama nijaay boobu moom ko hmm. moomul justice bi ba war a def loo xamante ni nii ah kenn amu ci droit ndax yow ñeenti xale yu bokk ndey ak baay Sénégal gi ba muy Sénégal ba léegi kenn mësul dégg ko leen boole dugal leen biir prison ñu naan déet dañoo jote ak nit du ay agresseur ci je comprends bien ñeenti lu woon ñeenti xale yëpp. ñi nga xam ñoo taxaw tax tey mu am lii mu am bay maye. ñoo tax mu am lii mu am bay maye ki nekk Dakar bi ñu bëggee nangu liggéey bi ci moom dañoo yebal waa sûreté urbain ñu ñëw fekk ko fi ci biir place bi ana Ablaye Diagne maa ngi nii ñu mënata ko. mënate ko génne ko jaarale ko ci biir koñ bi parce marché ngelaw gépp di jooy ñu yóbbu ko bañ ko yóbboo fa lañ ko téye ba vingt deux heures ñu bàyyi ko léegi moom naka la mën a amee doole jàpp lu nit fii ci ci dakaar koo xam ne mun nañ ko convoquer bu ñëwul nga doo ko def agir noonu mais li gën a doy moo di kooku ñu jàpp yóbbu ko tee ko fa ba vingt deux heures avocat am taxaw ñu wax lu leer ba jëlee ko fa bàyyi ko fa kooku tey moom la jëlaat def ay pexe ba jàpp ko jàpp sama rakk bi nga xam ni moo nekkoon caissier mm-hmm. te pourtant moom doomam mooy comptable caissier sama rakk bi te doomam ma nga fa toog ñu jàpp ki nga xam ni mooy caissier bi te comptable moo ëpp responsabilité caissier bi te liggéeyam tënke noonu ko xam noo xam ne dërëm mënu fa jóge même moom bu fa soxla woon cinq francs dañ ko koy bindal sorti ni ñuy liggéeyee mooy caissier bi bu ñëwee ko soo ñëwee soxla xaalis da ngay dem soit nga dem ci ñaari frère am wala nga dem ci samay frère ñu bind sorti bu ñu bindee sorti jox ko caissier bi caissier bi jël montant bi nga ci bind joxe ko jël do jël papier bi jox ko comptable bi mu enregistré ko bu fekkee ne ni marchandise dañuy def facture buy jaar ci ordinateur ñu yóbbu su ñu demee bu kooku nee dafa manqué su ñëwee da chauffeur bi ko yóbbu woon la ñuy ne yow yaay fay parce que ñu koy dugal da nga waroon a xool mm-hmm. ku fa maanaam dërëm boo xam ne marchandise la bu waroon a dem manqué chauffeur livreur bi da koy fay caissier bi chaque jour que jëfee bu ñu paree balaa ñuy tëj dañuy toog def point xool lépp dugal ko ci biir ordinateur yi caissier bi def keesam bu manqué cinq francs moom mi yor kees bi dafay fay kon kooku kuy sàcc xaalisam fan ngay jaar parce que nit ki ubbi na palaas commencé ci liggéey jalousie jàpp la nga jël tuuma bu toll nii di ko teg doomu aadama ñu naan déet ñoo ñooñu di sa jabaat benn bi mooy Ibrahima mi leen di wax ñu feebar doomam mooy jabaram moom doom ju moom mooy jabaram am ak moom juróom benn bant mm-hmm. bi problème bi amee dafa farak papaam bu xëyee suba takk ay bagaasam dem seen kër min wi lay dugg si ci kër gi taxul sama frère bi wax ko dara mus ko wax dara bu demul kër pàppam dem na kër bàjjanam te yaa ngi fi mën nañ ko seede bi nga xamante ni dafa tëj kër gi ni sama frère bi du dugg may wax ak moom téléphone ci la génn dem yoonam bu mu génnee dafa dem ni papaam ñun ñoo ko doon xas di ko saaga ñun ñuy wax suñu téléphone waxuñoo moom loolu ku mu génn ci kër ga dafa fekk ne pare woon nga pour dem mm. ba mu demee tëj néegam yóbbu gan yi nga xam ne dañoo màggal si woon seen valise yëpp mu toj ko ñoo ñooñu jaaxle ni ko est-ce que doo yónni kenn mu tijji jox ñu suñu valise yi mu bañ deful lu dul ñu ne suba la màggal mu def descente ci kër gi ànd ak ay gendarme ñëw ubbi néegam di jël ay bagage may yaa may may laaj doole boobu nag moom mu am ci réew mi lan moo ko mën a may loolu kër gu coow amul xuloo amu fa xeex amu fa nan la fa gendarmerie defee descente pour bunge jigéen muy ñëw di jël ay bagage am injustice yu doy yu doy waar yu doy waar moo am loolu moo tax nag ñun lii neexuñu mais amuñu pexe parce que dossier bi boobu fa nekkee ba léegi kenn mësu ci wax kenn mësu ci def kenn mësu ci dundi ba mu des quarante huit pour que ñu mën a retrouver seen liberté ndax am na fa six ñu jëlaat beneen mandat de dépôt teg ko seen kaw ñu bëgg nag ministre de la justice mu wax ci lii di xew Diourbel tribunal tribunalu Diourbel ak prison Diourbel ministre de la justice ñu ngi koy appelé ak mu xool li fa xew hmm. parce que injustice bi metti na trop trop trop trop yaay boo xam ne sa ñeenti doom dañ koo jël jàpp leen tëj leen ñu xam yaay ni mu mel ci benn doomam rek bu amee problème du lekkati du naan du nelaw lii buñ ma woowoon léegi ni ma sa yaay nekkatu fi man du ma ko weddi mhm. waaye yal nañ ci yàlla muccal muy ñaan nag Ibrahima jaañ mi nga xam ne dafa feebar am diabète type 1 trois fois avant chaque repas dëkk Touba Mbacké ñi jële ko tëj ko Jurbel ñëw def régime am di feebar di tane dafa dem ba sama frère beneen frère bi moo ko ne boo feebaratee bu ko wax Aram Diagne parce que xam na ni su ma ko waxee damay jaxasoo

ministre de la justice injustice bii nga xam ne dafa am ci diggante xale yii nga xam ne ay jirim lañ seen papa gaañu seen nijaay yor yoroon leen ñu liggéeyal ko lu ne lu ne lu ne lu ne preuve yépp a ngi fi lépp lu ñu ko lu sa liggéeya lépp lu mu investir xale yi ñu ngeeg preuve amul lu mu leen di faye lu dul di leen tuumaal tuuma boo xam ne da cee doomam rocc ci ay rakkam rocc ci magam jël leen tëj lu leen ci kaso Jurbel bii ñu ngi koy demande aka li ci war lépp nañ ko def ñun justice lañ soxla ki nga xam ne dafa feebar amul ñu droit di ko fa lu ko mënti dal nag seen responsabilité la parce que tëj koo xamante ni nii dawul taayul ba pare yaa ngi détenir ñaari frère am petit frère ak grand frère xanaa bu doon daw nga ci xalaat sax ñetti nit moom doy nañ garanti ci biir prison bi mm-hmm. maa ngi leen di jaajëfal bu baax Thank you.